le programme est là. man le programme est là mon ami mon frère mais mon ami mon frère <laughs> l'international est là. le centre du peuple le soir du peuple est là. le centre du peuple le soir du peuple est là Wally Ballago que mon ami mon frère Baye Fall mes frères. mais Wally mon ami mon frère l'international baa ngi noonu l'international baa ngi noonu le choix du peuple le centre du peuple gaa ya ko wax de allah Wally ngi noonu le centre du peuple le choix du peuple

ay jigéen yoo xamante ni ah indi ñu seen bopp ah nattu la you seet leen bokk ak ñoom fête bi di la ñaanal ñu ñibbi seen kër nu mu gën a gaawee incha allah. alors alors tout à fait fii ku fi dugg am yëg-yëg waaw ak koo mën a doon. alors waaye ba nga duggee gis ay xale yu ndaw yoo xam ne ay trois ans lañ am euh, nekk ak seen yaay si biir prison bi noo nga ko gindee.

et c'est important. waaw. Euh, Wally ñu ñëw ci actualité euh, un tout petit peu. parce que ah. gis nañ inaugurer ñu inauguré stade bi euh, am na loo leen préparé woon malheureusement joué woo. mais la dernière fois tu as joué avec le président de devant le président de la République après avoir joué avec le président de la République ak ñi nga àndal lan réaction par rapport à ça ginnaaw coow bi mu bëree surtout. sama réaction gis ngeen ko wax ko président. Ah, mais wax ñu ko ñun. non loolu amul benn le li ah, du dara. du dara. alors. Hello. It's okay. Hello, Wally, Wally, Wally. Wally, Wally. Portilha